ha koy oxene xetona andano i andan o baaxa nu mosa nget i mosa nget xa waralu a ñoqale xaye a no mi kat fi'im tig de texe saxum demno ten te soɓa mene ri ñama xaxam joka njal nama dem worka xaye a fi inchallah taala ma rek a felanga roog o no tudu mburo name fo dëkk mbuur ki nga dajal mos nga ndaje daan naa ko keroog maa ko daan final fële. lu waral xeex bi tey. mu ñëw jël daal bu ko dugal sama biir tànk yi luy loolu. mais sportif ngeen. mais loolu du yoon quoi. da ko teg si yoon rek. tey nan lay demee. yàlla baax ki maa ko mën fuuf.